Euh, ci noonu rek euh, li ñuy daal di wéyal li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi euh, bi yoon nag ñu dem ci li nga xamante ni moom moo di polémique bi nga xamante ni moom moo fi juddu ci ayu bés yi nekk ci diggante waa Evenpro ak li nga xamante ni ñoom ñoo di waa Jamra Mame Makhtar Gueye bu Jamra ndax gis nañ ni ab plainte juddu na fi gannaaw ab séquence boo xamante ni amoon na fi mu jurub coow askan wi di ci wax loolu tax nag ba plainte bi sax dem na ba jamono ji ñi ngi ci diggante yéeg ak wàcc kon donc Mountakha yaakaar naa ni li ni mel di nga ci mën bi nga xam ne posé nga ñu ko. mooy mm-hmm. millier bi ba léegi rek dañu mm-hmm. dellu si waat suñu Papa Demba Fall. Mm-hmm. waxoon na ko ci aar bi mu ne moo xam ñu joué loolu la casting dem bi Fall boo xoolee ki jamono fay nañ ko plus de des centaines de million pour joué la ko benn rôle boo xam ne tuuti la rek benn séquence bu ndaw. nee na lu sama diine gërëmul bëgg ko duma ko def. et tey loolu bu ko loolu dina nekk benn recherche moment bi. alhamdulilah mu ngi doon sant yàlla mais dina fu mu ko yóbbu ngeexantal ba fin ba tey ana papa Demba Fall dem na yooyu yëpp da ko sóoraale woon démb tey mu mel ni tey ONG Jamra ma maxtar Gueye ñoo ngi koy nuyu di ko nuyu de passage moom yaakaar naa ne xam nañ ko ci jàmm ji info bu baax tout récemment yaakaar naa avant-hier déggante nañ téléphone euh, si laa dégg sax ci trois plaintes yi nga xamante wàcce boobu man yëguma sax lu xew mm-hmm. bon mu mel ni tey démb def na benn jotaay def na benn sorti donc benn site de la place ñu Sénégal demoon na fa. Mhm. nga dégg tey kàddu yoo xam ne yëkkati na ko. muy euh, maison de chaîne bi nga xam ne production event pro ñoom seen bopp infidèle mhm. parce que xaw na compliqué woon parce que gis nañ fii ki nga xamante ni soxna soo xam ne génn na fi. Mhm. vraiment di def yoo xamante ni du mbiru jigéen du jëfinu jigéen bokk ndax en tant que sénégalais dér gu ñuul xamuñu ko. am na yoo xamante ni tey xale yi tey mën nañu wax ni gis nga internet bi tey euh, portable yépp télé la tey foo taxaw yaa ngi kii am na xale yoo ndaw yoo xamante ni à partir de moins de dix ans onze ans jëm kaw xam nañu li portable nga dox benn melokaan boo xamante ni loolu euh, am na mag ñoo xam ne sax mosuñu ko teg bët te keroog teg nañu ko bët lu mel noonu parce que dañuy gëm ne lii Sénégal amu fi. Mmh. Euh, donc Mame Makhtar Gueye ci côté plainte boobu lay dox la doon dox parce que ce n'est pas la première fois ñoom ak ñoom bari na ay xëccoo donc ci côté série infidèle bëri na ay xëccoo ak Mame Makhtar Gueye parce que tout souvent nee na dafay gis loo xam ne lu àndul ak wax fa dëgg yàlla sunu doxalin ci réew mi ñoom loolu la ñuy produire di ko doxal donc euh, gis nañ fi koo xam ne soxna si nga xamante ni gis nañ ko mu def melokaan bu doy waar di def ay comportement yoo xamante ni jigéen rus na sax di ko def jigéen rus na di ko def jigéen koo xam ne gor la as rus na di def li ni mel yenn daanaka futti sa yaram def loo xamante ne dégg nga maam doxul àndul ak lislaam àndul ak doomu jullit en tant nga ne jullit la euh, mu mel ni tam yi foofu dañuy delluwaat euh, Pape euh, Demba Fall mm-hmm. dégg nga li ma foofu ba nga koy laaj ci Jibril infidèle mm-hmm. ba ko ndax sa doom la mu ne maa ngi moom mosuñoo toog mm-hmm. waaye doomoo naa ko mais conseil yi nga ko waxoon yi nga ko doon jox mu ne maa ngi koy conseil waaye di ko conseil mboolem ñi ma mës a formé ak mboolem ñi nga xam artiste yëpp laa ko booleel. bu buñ la joxatee texte balaa nga koo joué da nga ko liir bu fekkee jullit nga. na nga ko liir bu fekkee melokaan bañ lay wax ci biir texte bi dëppoo ak sa sa sa diine li mu la wax nee na jarul nga koy joué ndax nee na juum loolu dafa yomb. nee na juum loolu ak yomb nee na mën nañ la jox deux cent mille wala nangam ci affaire bu ndaw. da nga siiw waaye nag ilaa yawmi din sa der day yàqu pourtant lii yëpp waxo mais barki Demba Ndiaye la ko wax avant muy def dafa mel ni lii yëpp ci ginnaawam tey soxna si bu xoolee lii bu xoolee image bii vraiment yaramam war naa daw. Mountakha da ngay teg foofu sa baaraam dangay teg foofu sa baaraam su ko defee ma ànd ak waa Rési sama cadre Cheikh Omar Dramé su ko defee ñu daal di demaat ci kàddu yi nga xamante ni Demba Fall yëkkati na ko laata muy génn àdduna doon ñaaxaat ak wax li nga wax léegi rek mu di texte balaa ngaa joué lire texte bi ba xool la ca nekk nañ xool image bi bu ko defee ñu dellusiwaat léegi léegi. na nekk sama mbokk ma na nekk sama kii. Mhm. mais ba tey bu ñu waxee ku ma waxal ba fii may waxee yow dem naan waa maa ko jur. tey boo amoon euh, yenn conseil yoo xamante ni moom nga koy dénk lan lay doon ndax gannaaw mu ngi ci aar bi. li ma koy dénk rek mooy na góorgóorlu. Hmm. bu ko aar ak xaalis buñ ko fay lu jar mu def lu jaaduwul bu dee jullit la. Hmm. bu muy saaga. Hmm. rôle bi bala mu ko joué na liir texte yi ba xam lii war na ko def war war def. parce que yi juum ñu juum loole dafa gaaw de léegi ñu jox la deux cent mille trois cent def loole benn rôle bu tuuti ëllëg nga siiw. Mm. sa der yàqu xam nga kii ngay wax ne dañuy saaga. déedéet ñuy saaga laa wax. Mm-hmm, mm-hmm. xam nga ni am na ci ko xam ne man mere naa ko trop. Mm-hmm, du dëgg noonu la ko keneen di mere keneen di ko mere. kon lii man li ma koy wax mooy na góor góorgóorlu teg tànkam si mu ko war a teg. góorgóorlu loolu laay wax man dumbe loolu laay wax njànku loolu laay wax saa neex loolu laay wax artiste yëpp mënu ma leen a lim. jërëjëf dëgg yàlla. jërëjëf kontaan trop. <laughs> jërëjëf papa ñu sant. jërëjëf ci boobule élément sama cadre Cheikh Omar Dramé mu taxa dégg nga euh, fi nga xam ni foofu la euh, papa Dimbi Fall daanalee euh, muy lu am solo. moom laa wax léegi moom laa wax dafa mel ni démb moom nee naa la interview bi mu def ak jàmm ji info na ko nit ñi di bàyyi xel heure bu ñu yeewu di ko seetal. Mm-hmm. lu tax mu nangul ñu interview bi Papa Dim Fall kañ la gëj def interview. mais lan moo tax mu jaral ko mu ñëw mu def dernière interview ci jàmm ñee foofu am na lu tax am na lu. te am na lu ci doy waar loolu mun taxaa am na lu ci doy waar ndax maa ngi fàttaliku Papa bi Fall ba ma koy woo ca dimanche ba. Mhm. ne ko incha allah bëgg naa ñu def ko mu ne ma suba suba suba ñëwal. suba suba ci lundi ji ñëwal incha allah ñu def interview bi te pourtant boobu mu ngi jóge ci voyage mu ngi sonn. bien sûr sonn trop mais interview bi amul lu mu ko jaralul woon pour moom mu def ko. Mhm. boo xoolee bu baax a baax ci biir interview bi euh, Demba Fall buy toog dafay dafay xaw a def yenn geste moo lay wan ni kii dafa sonn mais interview bi dafa mel ni ku doon tàggu ay mbokkam. wallaay ku doon tàggu ay mbokkam ak yi lu lu lu wér nga wax parce que euh, soxna si leeral na ko. Mhm. neen li tax mu gën a ñëw mooy <laughs> site presse boo am na benn euh, site presse en ligne bi fi ñëwoon. Mm-hmm. neen euh, démb bi bokk na ci li tax mu gën a ñëw. sonnoon na nee na ba muy ñëw sax. Mm-hmm. naam mais dafa gérer émission bi parce que li ma doon bàyyil askan bi la mooy genre soxna yii tey mm-hmm. casting yii. mel nga ne nga war a mel rek nga jàpp ne ndeysaan sa valeur. depuis des années xoola des années ci ginnaaw da ngay xool boo ko xoolaatee xeeb sa bopp. des années bu ñëwaatee ñu tegale ne kii yow yaa ko defoon wala sa doom la. yaay yaa defoon lii nga ne noonu mën nga koo bañ waaye nit ñu dofuñu. Démb mm-hmm. Fall waxoon na ko moom la ñu wax ne mooy élément bi ñu seetaan léegi. Mm-hmm. nee na infidèle Jibril nee na yow la maa ngi la koy ñaax. Mm-hmm. mais li mu doon ñaax Jibril nee na ñëpp laa ko booleel. muy soxna mais nee na ngay def casting ngay artiste ak di def casting. kon donc yaakaar naa ñëpp la ci booleel moom wax na li mu war a wax ba muy dem bàyyi na fi nag ab kàggu bàyyi na fi bind na. kàddu image yi dem de. image yaa ngi fi. heure boo yeewoo. seetaanal yow mi nga xam ne artiste nga war ngaa jàngat muy Jibril dèjà benn. dañu bàyyi xel bu baax. tudd turam. tudd ba pare ñaaxaat ko. Mm-hmm. surtout li war a am nag ak li am jamono yi si soxna yi nga xamante ni euh, melekaan bu doy waar gi nga xam ne war nañ koy image mm-hmm. lii yëpp waxoon na ko. Mm-hmm. nee na buñ la ak luñ la mënta fay nee na liir ko ba noppi ak luñ la mënta fay bu mu la ko jaral. bu fekkee jullit nga waaw. mais ma maxtaade ONG Jamra moom vice président moom euh, boo xoolee amoon na polémique. ki soxna si nga xam ne moo di Aïcha Thiam ñu naan ko Mariama ci infidèle moom ci boppam tout récemment ci infidèle dañu wax première cas soxna si doy waar moom it ñu ñëw ñu ne moo dañ ko doon joué benn rôle rôle boo xamante ni gënalu ko baaxul boo xamante ni dëppul ak l'islam nee na mu bañ nee na ñu dàq ko mais nag polémique amoon na foofu entre maison de production Evenpro ñoom génne benn décret xamal leen ni carrément loolu nekkul parce que problème bi mooy rôle am moo jeex ñu rey ko moo tax mais kenn dàq ko. mais maam Maxtaar nee na loolu doy ko nee na mu jël fexe ba ligganti numéro Mariama bu infidèle woo ko ñu déggante nee na soxna si dëggal ko li ni mel. nee ko carrément dañ ko dàq. nee na mu gërëm ko sant ko nee ko nag dinañ la décorer dinañ la sargal. nee dinañ la sargal parce que euh, maanaam liggéey ngi rôle bu am solo ci jigéen. parce que am na loo xam ne boo ko nangoon rek da nga yàqat ay der yu bari. bon ñee génn nañ teg mais maam Maxtaar démenti na loolu nee na carrément ci boobu moom soxna si la jël numéro Mariam moom ci boppam ñu naan ko Aïcha Thiam ci infidèle woo na ko téléphone moom moo ko leeral li ni mel xamal ko ni carrément que dañ ko dañ ko dañ ko rayee ci film bi dañ ko génne dañ ko dàq <laughs> donc comprendre donc gis nga li Papa Demba Fall doon wax moo ngi ne muy ñaari mbir soxna seey nangu na ñuy jëlee ko rôle boo xam ne gis nga ko mu image bu ñaaw image bu doy waa kii ñëw ñu ñëw di ko bëgg a jëloo mu bañ ONG Jamra ñëw félicité comme moom day planté di dal ci seen kaw mais bu gisee loo xamante ni fa dëgg yàlla lu sedd xol la loo xamante ni def na defar na deru jigéen mais dañ ko woo encouragé ko félicité ko donc ñoom ñee génn nañ seen décret mais li Mame Makhtar Gueye ONG Jamra wax moo wax ñu dégg ko à travers euh, Sénégal ñu ñu ñu ñu ñu lu ko mu wax nee na carrément moo liggéenti numéro soxna nee na soxna si woowu ko de nee na moom moo woo soxna si fexe ba woo ko mm-hmm. nee sama numéro am naa sa numéro te dinañ déggante ONG waa Jamra dinañ taxaw dinañ la jàppale dinañ la dimbali. kon mu mel ni ku ku mel ni euh, Aïcha moom ku jar a sargal la. non ku jar a sargal la. non ku jar a sargal la. waaw kii dèjà li Pape Demba Fall doon wax. Mhm. ñaari cas dafa pesé. Mhm. kii dafa nangu li ni mais kii bañ li ni mel. Mhm. muy lu am solo ñu lay euh, sant Mountakha di la di la gërëm euh, di la di la jaajëfal bu baax a baax ci loolu. jàmm